aasbillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim bokki ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fukkeelu guddi gi ak ñett fukki rakka doon ba tey di juróomi sëlmal rakka bu nekk am suratul fatiha waaye benn bu ci nekk dafay am lii nga xamee ne moom moo di juróom-ñaari isaa ak juróom-ñaari ixlaas ku def naafile yi ba pare ñaan goo ca teg rek ak salaawaat yoo ca teg julli ci yonent bi wala nga def ay istixfaar baax na ba tey wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala